asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu jotaay yëpp di remercier presse bi ni ñu wuyoo tey ñu ngi leen ciy gërëm may sant di gërëm militant sympathisant yi ak responsable politique yi yëpp di wax ni gis nañu leen kenn ku nekk te ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa waaye dinañ ma may ci ñi fi teew ci responsable politique compte tenu contexte ma jukki leen ci rek muy ñett muy monsieur le maire Beydi Ba nga xam ni mooy maire Gounass euh, Ndiarème Médina Gounass monsieur le maire Beydi Ba mooy tête proportionnelle fii ci géejawaay ci élection yi ñu mu am ñaari suppléant am yu fi nekk muy soxna si Fatimata si doon jeune doon ku dynamique monsieur le maire Mor Waré Sarr Gueye Gueye bu njaareem Limamoulaye doon aussi suppléant donc seen teewaay fii mënuma ko bañ a préciser waaye di wax ni gis nañ ñëpp buñ fi nekkee di lim duñ fi jógee euh, ñuy nuyu di gërëm aussi madame le ministre Néné Fatoumata Tall bi nga xamante ni waroon na fi ñëw mais dafa am ngan parce que dafa voyagé di jox wàccuwaayam monsieur le maire Aliou Sall coordonnateur départemental moom tamit dafa tukki il s'est fait représenter sunu yaay Aïda Sow moom aussi dafa am activité fële Jaravin mu waroon fa teewal benn bokk yaakaar di wax ni département bi yëpp ku mënul ñëw aussi yónnee nga te gis nañ sa ndaw woote bii nag man maa ko woon ndax dafa mel ni bi ñu génnee ci élection locale ba léegi xawoon nañ dóor batmaa tuuti ñuy jëm ci ay élection législative presse bi na ngeen dalal seen xel xam nañ ni ci pré campagne lañ nekk donc day jaarul ñu communiquer waat ak suñu ñoñ waxaat ñu dégg ñu mën a recueillir sunu orientation ñun xam suñu état d'esprit xam ñun naka lañ gisee mbir mi moo tax point de presse bi ñu ko tënk ci ñetti point gannaaw bu ñu defee introduction bi ba pare dinaa ñëw ci introduction bi premier point bi mooy situation politique locale au niveau de Guédiawaye deuxième point bi mooy situation politique nationale troisième point bi ngeen baal ma ce sera dédié au petit imbécile de Sweet Beauté sama introduction mooy d'abord sant gërëm remercier président de la république félicité ko ci leadership am au niveau continental et au niveau mondial gis nañ ni mu taxawee ci guerre gi fi am gis nañ ni mu taxawalee kaddu Afrique loolu dama ni fierté la te mënuñ def lu dul remercier ko ci gërëm ko ci sargal ko ci di rafetlu posture am posture homme d'état ndax dëkk bi am na ñu koy bëgg yëngal saa su ne te wax dëgg yàlla moom xajul ci ñooñu waaye boobu léegi kenn déggu ko mu wax kenn dégg ko mu tontu mu ngi ci la mu war a nekk mooy fexe dimbali sénégalais fexe tabax Sénégal kalmam boobu dalam boobu posture boobu ñun dañ ko ci félicité ndax leer na senegaal yëpp di wax ñëpp ni li xew ci wàllu njëg njëgu dund du Sénégal rek la méttee du Géejawaay rek la mette àdduna sépp la dal effort bi nga xamante ni président de la république mu ngi koy def pour contenir les muy électricité muy ceeb ak diwlin leneen lu mu mën a doon muy yokk salaire u yi mu doon ay effort yoo xamante ni Sénégal yëpp teg nañ seen bët tey boo demee ay dëkk yu mel ni Allemagne pour nga am diwlin problème la ba koy jënd ñun ñu ngi am diwlin même bu dee yokkul donc ñu xam ni li xew dafa am lu ko waral te conjoncture mondiale bi moo àgg foofu te président de la République mu ngi def kéem talaay kàttanam pour dékku bu ko kenn utiliser pour di ko politiquer bu ñu nangu kenn ku utiliser loo xamante ni dépendrul ci ñun dafa dal ci àdduna mu doon ay dogal bu ko kenn utiliser à des fins politiques pour manipuler l'opinion en guise d'introduction loolu laa bëggoon wax premier point bi may tàmbalee mooy situation politique géejawaay loolu nit mënu ko wax te waxul investiture yi nga xamante ni président de la république def na ko fii ci géejawaay may wax ci loolu ni surtout sama waa kër loolu mooy surtout quintessence dañu bi di leen wax ni ñun de mati Sall président de la république bu investiroon ab bant sax danañ ci xar suñu tànk tubéy dinañ ko jàppee ni suñu jëmmi bopp ndax bato day am capitaine te soldat aussi day am kilifa moom kurus yi nu mu ko nase rek ñu wérde ko noonu suñu yoon néew donc lii may wax sama waa kër laa ko gën a wax samay militant samay militante samay sympathisant jeunesse bi jàpp ni Lat Diop la ñu ndax élection bi du élection wu Lat Diop du élection wu Aliou Sall du élection wu Néné du élection wu kenn élection wu Macky Sall la président de la képp koo xam ni sama mbëg sa mbëg la képp koo xamante ni sama ndam sa ndam la élection yi nañ ci def loo mas sa def ci politique ndax dinaa ci def man tamit lu ma mas sa def incha allah loolu dama koy seedeloo assistance bi ñi nga xam dañ leen investir ñu xam ne yëf yi duñ leen ko bàyyee du seen yëf am nañ ay camarades am nañ ay mag walla ay rak ñoo xamante ni dinañ gàddu yëf yi te dinañ ci taxaw taxawaay ba war ba nga xamante ni géejawaay dinañ delloo buum ca mboy boy waa géejawaay nag li ma leen di wax toujours sur le premier point situation politique locale wax naa ko démb dama ni lu mag def ba dee bu dekkee jàpp naa ne dina ko baax ñun de géejawaay suñu sag dafa sàggeeku ñu war a fexe ba lijjanti ba nga xam ni ñi ñuy représenté assemblée nationale nañ doon ay nit ñoo xam ne fu ñu leen wonee du ñu sëkk ndax li xew ci mairie bi rek doy na sëkk nag waa géejawaay nañu sagal seen bopp rikk gaay yi géejawaay nañu sagal sunu bopp am na yoo xamante ne du sag te dafa ñaaw te nag géejawaay damay wax ni mérité na lopp loolu sunu yaay yii sunu baay yii jur nañ fi ay doom yar leen du ma ne kenn dafa yées waaye am na lu gën loolu te ñooñu gën loolu bu ñuy choisir nañu xool li gën ñu def duma ci xuus duma ci sori waaye daal li may mën a wax mooy géejawaay géejawaay àdduna ak ñi seetaan ñun ñuy seetaanati ndax foofu la ñu ñëpp xaar nañu fexe ba buñ fa dem am na loo xamante ne du sax nañu waxante dëgg këtt géen yi ñuy jox ay responsabilité ci dëkk bi nga xam ni tekkiwuñu dara seen réputation ak seen lépp ñu ngi ko sos ñu ngi ko basé ci waxal nit sosol nit ak làmmiñ ñu rëy loolu bu ñu ko nangu donc c'est un appel que lance à la jeunesse aux habitants de Guédiawaye pour vous inviter à faire le bon choix à faire du moins les bons choix loolu duma ci préciser fa laa koy teg